ne ku ne ci li nga man yàlla u yaa ahadu salli sarmada wa salliman ala nabiyin ahmada yàlla u yaa ahadu salli sarmada wa salliman ala nabi ahmada sayyidi kulli ajamin wa rabbi والآل والأصحاب أهل القرب يلا يا نافع صل أبدا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 niki ni nag ba tey ñoo ngi fii ci Touba Mouride fii ci uh, ginnaaw Malem Odar ngeen gis noonu tey jii bokk ci ñaareelu fan bi nga xamante ni mën nañ ne yi def nañ ko fi ngir liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi woote na ko fi muy sëriñ Amsatou Mbacke moom sëriñ Sohaybu macha allah comme niñ koy faral di waxee saa su nekk di ko bamtu di ko bamtuwaat jëmmi sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ son bu waxuñu ci saayir liñ mën a gis ak liñ mën a wax roy gi nga xamante ni roy na ko maam ju tedd ji di sëriñ sa xel ak sa sa lépp dina dem ci jàmbaar lislaam jooju di sëriñ Saalix Mbàkke doxalinam ak léppam méngoog doxalinu sëriñ Saalix Mbàkke mbokk yi nag bàyyi ko fenn fu nekk ci réew mi ak li génn réew mi wuyu si sëriñ bi ci liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy amal fii ci Tuubaa Murit waaye ci njiital Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne euh, fàllu moom sëriñ Soy bi moom sëriñ Amsatu macha allah ngeen gis noonu bokk yi bàyyi ko fenn fu nekk ci réew mi ak li génn réew mi ngir liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi mi ngi koy amal la fii ci ginnaaw Malem Odar fii ci daaraam ji nga xamante ni mi ngi ko dippee Touba Mouride noonee ko fas yéene lépp loo xamante ni am na fi mu doon lu ñu war a génne moo xam ay kàddu yu fër jib waaye rawatina liggéey bu am solo bi nga xamante ni bokk taalibe yi ñu ngi ko fi amal kon nees tuuti kon dikk ak yéen ci ñaari fan bi nga xamante ni bokk yi ñu ngi ko fi dund di ko fi def ci liggéey bi nga xamante وصابي في الحال والمآل ولي أب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني وجعل ممري ظاهرا وباطنا بي تيبا عبدا شكورا اعطنا وصل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلين وصحبه في الحال والمآلين وصل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلين وصحبه في الحال والمآلين ولي أب ودا يدوم بفلاح jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñooñu fii nag eh, ci Touba Mouride comme niñ koy waxee saa su nekk rek eh, ku fi ñëwati waaye rawatina ci waxtu wii sa xol dina sedd bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne murid yi wuy si nañ ko Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou waaye ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñoo ngi taxaw ak kenn koo xamante ni lépp la ci kër gi taalibi la lépp la ci kër gi bokk ci jëwriñu Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaib muy Serigne Mohamed Mbeng fa seeni koo dékk rek suñu micro mu wax leen rek ci liggéey bi nga xamante ni euh, tey jii mën nañ ne mboolem ku fi ñëw sa dina sedd ngir wuyu si gi nga xamante ne bokk yi wuyu si nañ ko Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaib xam naa ñu fa seeni koo jox rek suñu micro rek lenn ci liggéey bi nga xamante ni tey jii mooy ñaareelu fanub liggéey bi bokk yi bàyyi ko fenn fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ci liggéey bu mag bi nga xamante ni bi mi koy amal allah fii ci Touba Mouride. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar kenn ku ci nekk ci sa sant di dellu di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla julli ci yonent di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul suñu yaakaar tey ak ëllëg di sant Serigne Amsatu Mbàkke moom Serigne Soy bu Mbàkke moom Xaadimu Rasulillahi Euh, lii nag euh, boo ko gisee woote bii Serigne Amsatou woote euh, xel yi day dellu ci li nga xam ni sëriñ Touba mi samp yoonu murit ci ndigalul sama borom doomam yi nga xam ni moom mën na sañoo wax ay doomam ñu leen di tudd di ko tudd liggéey bañ nekkoon te doon noo ko ci sëriñ Touba mooy rabbi asabika bi himmati walaatu rabbihim bi dar sa faqat mooy yonent bi ba mu feeñoo sëñ tubaa ne ko na nga yar say ñooñ ci ci yitte himma boo ko déggee mooy yitte te bañ leen a tàggat ci am njàng rek loolu boo ko gisee mooy wundu lii ba tey fii ñu yegg si tey ndax doomi sëriñ tubaa yi ba ci ki nga xam ni moom lañ mujjee jamononteel muy sëriñ tubaa Cheikh Saliou Mbacké moom ci lii rek la nekkoon ndax am na ci xeetu lo yoo xam ni xeetu tawféex yoo xam ni boo ñëwee ci kër sëñ tubaa rek nga ko mën a gis rawatina euh, doomi sëñ tubaa yi daan liggéeyloo taalibe yi ci lu mel nii sëriñ Amsatu nag euh, li fi sëriñ Saaliw bàyyi woon te doomi sëriñ tubaa yëpp bàyyi ko fi foofu rek la tegaat tànkam te ñun ñii la bëgg dimbali ñun taalibe yi ñun taalibe sëñ tubaa yi la bëgg dimbali ndax moom ku ne xam na ni dem na te ci sëñ tubaa la jëm ah, ki xam fi mu jëm nag yéene taalibe yi yéene leen ndimbalul saa borom ak tawféex ni ko Cheikh Mouhamad Mouhamadul Mountakha Bachir di waxee nga xam ni moom la ñu waroon a jiital ci nuyu bi sax muy xalifatu kull murit ni mu ko waxee rek ne jànkatu xasida yi xaas lañ am ñun taalibi Sëñ Tuubaa yi xaas lañ am sëriñ Amsatu ndimbal googu la ñu bëgg a defal moo tax liggéey bii mu woote ko ngir ñu ñaqal sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa ku ne xam na ni ku ko ñaqal doo bokk ku ko ñaqalul ñaq gii ñu ñaqal Sëñ Tuubaa nag di ko ànd ak Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne bu ku ne xam na ni Serigne Amsatou moom dara dara ñoru ko ci kaw suuf lu dul liggéeyal Serigne Touba ci anam yëpp mi ngi ci xasida yi bu nekkee ci xasida yi ba ngeen nit ñi jàpp ne ci xasida yi rek la féete mi ngi ci tool yi bu jigee ci tool yi mi ngi ci waa kër Serigne Touba bu jógee ci waa kër sëñ Touba yi mi ngi ci taalibe sëñ Touba ak mbooloo mi jullit rek ndax ku xool liggéey bi xam ni na ko Seex Saalihu Mbàkke daan defee mook nii lenn képp la te jubluwu ci woon lu dul dimbali taalibe sëñ tubaay kon nag ñi ngi wax ne ñi ngi sant ñëpp ñun moom dañoo mënut wax lu yàgg ndax liggéey bi jàpp nañu képp ku fi ñëw ñun nga koy defal ndax ñun doomu kër gi lañ euh, taalibe kër gi lañ lépp kër gi lañ te sëriñ Amsatu lañ yaakaar àdduna ak alaaxira kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñun ñëpp buñ ci noppee rek dajeeg tawféexu sëñ Touba asalaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها سقائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباتني في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة ما والعليم القبير الذي لا يقفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من حب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسمني من طلب شيء لم ترضني طلبه وامو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بعق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إجاء الرسين كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم yaa baaqi yaa akramu yaa naafiu yaa rabbal aalamiin jallaahu yaa samadu salli sarmadak ala nabiyil rabbi amadak jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñu fii ci uh, Touba Mouride ci tool yi nga xamante ni wala Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou bi ñu nekk ci fan bi nga xamante ni tey comme niñ koy waxee saa su nekk rek ku fi ñëw rek sa xol dina seddaat bu baax ci jàmbaar ji nga xamante ni tey jii moo santaane liggéey bi te ku ne ko jàkk rek sa xel dem ci woy juróom woowee di Serigne Saliou mbakke ni ki noonu nag liggéey bi dem ba tey ngeen gis ne kilifa yaa ngi fiy ñëw ba ba léegi di nemmeeku si liggéey bi waaye di wéral seen kóllëre ak Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou tey jii nag ku gis eh, jataay bi ci njiital Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ki ñu taxawal nii mu bokk ci préfet bi nga xamante ni moo yilip fii ñu nekk muy diwaanu Malem odaar mu ànd ak nag délégation fort boo xamante ni incha allah rabbi ci biir kàddu yi dina ko tuddaale waaye di leen fàttali rek na lépp dara waru ko loolu ànd gi nga xamante ni ànd nañ ko ak Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne bu ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def fii te ànd ceeg ñoom saa su nekk ci liggéey bi ndoorteelu liggéey bi ba fi ñu toll nii xam naa ne kàddu yi du mën a gudd dañuy jox préfet rek mu wax ren len rek ci eh, mbollem ci ñi nga xamanteni ñom la andal waye wax rek ci digeentem ak sëriñ bi waye wax rek ci jangat bi nga xamanteni rek tay ku ñew fi ci tool yi rek di nga xamanteni ni am Amsatu mbake mom sëriñ Soy bu len rek ko ñar dindal l'islam tarbiya jang alquran jang xasida te koy jangale kon préfet bismillah ñi ngi nuyu ñep di wax eh, eh, mbekté mu ñu am ak kontante bu ñu fekk fi mbolo mu toll ni Euh, takkoo nii Pastefoo nii euh, ma ñëwoon nag ànd ak euh, délégation boo xamante ne bii le sous-préfet de Sagna mi ngi ci le député maire de la commune de Sagna mi ngi ci gendarmerie mi ngi ci ki yore eaux et mi ngi ci ki yore mbirum mbay mi mi ngi ci ak ñeneen ñu gën a ëpp loolu donc ñëpp ñoo xam ne daal seen liggéey màcc na ci lu mel nii ak ànd nañu ak ñoom fekk fi tamit équipe médicale bi nekk fi yëpp donc ñëwoon rek nemmeeku liggéey bi nga xamante ne bii sëñ Amsa mi ngi koy def fii muy loo xamante ne bii lu am solo la ndax dañu jàpp ne koo xam ne la koo xam ne mi ngi jëf yëngu ci wàllu développement ak wàllu koom loo xamante ne bii xëy na bu yàlla defee mu antu ni ma koy faral di waxee dina dina ko weesu mais dina jariñ ñu nekk ci gox bi yëpp wala sax ñu nekk ci réew mi yëpp ku mel noonu nag boo ko amee ki sa département ah war nga koy nemmeeku. war nga koy jàppale war nga koy toppatoo itam loolu moo waral sunu ay sunu ay tànk fii sëñ am sa tam nekk wax ne wax dëgg yàlla bi ñëwee ba léegi rafetlu nañ nekkinam fii te loolu ñun waxuñu ko ñi mu dëkkal ñoom ñoo ko wax eh, ci wàllu rafetaay gu rafetaayu ànd bi ak nu muy nemmi ko dëkkandoo yi nu mu leen di jàppale ak yërmaande gu am ci ñoom ak itamit action yu bari yu muy def ci wàllu santé ak ci wàllu développement ci loo xam ne bi xëy na mënuñu ko lim wante mi ngi koy def ci ay ambulance ñu fi ak yu bari yo xam mi ngi koy def ku mel non na kon wax deug yalla ak yeneen xéet jëfënte yo xam mi ngi koy def ak kilifa yi fi nek ba tax na lolu wax deug yalla duñ koy rafetlu bu baax a baax diko sante bu baax diko diko gëreum di nuyu tam bu baax a baax eh, señ Cheikh mi nga xamanteni mom moy jëwëri ak ay rakam ñu ci tek ñëpp ak mbollem tamit organisateur yi fi nek te ma xam ku mel ne sëñ Modou beek ñëpp ñi nga xamanteni bi ñom señ khadim Xaadim ak ñom nga xamné bi fan yëpp luñu di coordonner ak ñun ngir liggéey bi mëna jaar yoon ndax lu melni ni yombul dagale mbolo ay fan li aj ci walu sécurité bi aj ci walu sen lek sen nan ak sen lepp lolu dafa jaar toppatoo dafa jaar organiser mais luñu gis fi vraiment wax yalla dal na sunu xel bu baaxa ñu ngi ñaan rek yalla na yalla motti lepp si jamm te may nga nawet bu barkel te itam sëriñ bi tam li mu fi fii te ñun ñu xam ko te mu romb lool sax li yalla nako yalla sotal boo ko sottalee yàlla na nekk njariñ ci réew mépp yàlla na mën na ko yàlla na ko yàlla def sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la yóbbante tam sant ak ngërëm ci sëriñ bi eh, ne daal ñun daal ñu ngi nii ñu ngi koy tàllal loxo eh, ñi fi nekk sous-préfet ngi fi eh, maire baa ngi fi service technique yi ñu ngi fi lépp lu mu soxla daal loolu incha allah lu luñ ci mën dinañ ko taxaw jàppale ko ci ngir lim fi bëgg def mën a sotti ndax lii su ko neexoon def ko feneen mais comme fii la ko def tamit ah xam nañ ne njariñ la si ñëpp ah ñun tam mënuñu lu dul jàppale ko kem ni ko président ñu ngi déglee képp ku ma xam ne ki acteur de développement nga ñu mën la tàllal loxo man la jàppale yi daal moo doon sunu sunu sunu sunu soxlay tànk tey eh, ñu ñëw fi nag wax dëgg yàlla ak mbégte sëriñ bi tamit nekk koo xam ne kii ku ñu wëlanteel la ku ñu jàpp la ku ñu ku ñu ku ñu fonk la itam loolu tamit ñu ngi koy rafetlu bu baax di ko di ko fàttali lii daal laa bëggoon wax xëy na xaw na gudd mais yéen a ji rek moom moo ci nekk daal préfet ñu ngi lay nuyu ak euh, délégation bi nga andal ci turu Serigne Cheikh mi nga xamni moy mooy jëruñu liggéey bi ci kilifté fu Abdou blat nga xamni moy kilifa jotaay bi di nuyu délégation bi nga andal yépp di leen jot li ciantu Serigne Cheikh jóge ci Serigne bi di wax ni ñi ngi ci ñaarelu fan bi waye wax deug yalla liñ wax monsieur le maire demb rek la waxat tay eh, ben jafé jafe-jafe amuñu ko loolu li ko waral it mooy seen liggéey ne def ngeen ko lu jiitu ñuy egsi mën nañ ni bu ñu egsee vraiment dañ fay fekk ay su mais fii ni lépp yombee te fii booy xool ci gis dafay mel ni moo a waral ci la du du problème aux du problème sécurité vraiment rek euh, nañ santé la même chose équipe équipe santé bi ngi vraiment seen équipe administration bi daal ñoom ñëpp ñu ngi fi préfet di la ko seereel di la wax ni sant nañ bu baax a baax euh, ndox mi it euh, ni ko sëriñ bi waxee woon ndax barki dem bi muy waxee ak yow dafa laa wax ni lu ñu bëgg mooy nanga fexe ba ndox mi dox ci kii bi nga ne li nga ko wax rek mooy fexeel ba ñaanal ñaanal rek boo ñaanee moom incha allah tey boobaak tey noppalu woo depuis boobu ba léegi yéen a ngi ci avant ndox mi di tijji vraiment au et forêt def nañ fi effort yu am solo ñom ci sasi rek mercredi déplacer nañ auto bi mu ñew def liñ wara def yépp kon dal ci touru sëriñ bi sëñ bi sant na bu baaxa baax li ngeen def lu reuy ci mom la parce que bu ngeen togon fofu rek woote téléphone bon wax li ngeen di wax doyna na ku ngeen mënon di yoni mu doy sëkk mais su ngeen déplacer wo ñew ba fi ngeen di deug deug xam ngeen li ngeen li leen fi tek ndax vraiment li moy développement Sénégal tey jii lii bu ko ñëpp defoon léegi réew mi weesu fi mu nekk affaire bi jëf la du wax jëf ji nag yéen yéen a ngi ci vraiment ndax da ngeen di encourager kuy jëf ndax bu ngeen toogoon mu doy sëkk waaye da ngeen di ñëw ba taal seen oto ñëw fii tey muy seen bisu noppulu ngeen ba seen lépp tëj seen bureau yi ñëw ci àll bi ci poussière bi loolu moom day wane ab soññ bu rëy rëy loolu it sëñ bi sant na ci bu baax a baax kon daal di gàttal di guddal lépp mooy xolu sëriñ bi sedd na ci turu sering cheikh xolu sering bi sedd na baax baax mi ngi len di ñaanalit ngeen gëna am ndam ndax mom liko ñor rek serigne bi wax na ko léegi mooy liggéeyal ndax bu doon suuf rek wala eh, espace bu mu soxla fe mu dëkk ci Touba kilifa mi jox nañ ko cër fu mu bëggoon ñu jox ko lu mu bëggoon ñu jox ko ci kon bu ñëwee ba fi limi def ci eh, doomu adamay ci dafar gi ak dimbali nit ñi te li moy li nga ko indi fi yalla loolu nag yéen yàlla def na xam ngeen ko comprendre ngeen ko benn jafe-jafe amul lu nar a yàqu ngeen seen sol rafetal ko ba mu rafet kon sant nañ bu baax a baax sant bu baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sayidina muhammadin ali wa sabi fi lxaali wal maali wa mutawajjalun yo bi naxwi yaa xayra mudibil adhabil mahwi واردنني بك وبالمشرفع إلى الجنان ومقام يرفعي ولا تذل عن القيور والكتاب ولا توجه لجناب العتاب wala tuzil anil xuyuura wal kitaab ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi ci liggéey bu sell bi nga xamante ni eh, depuis diirub ñaari fan ñoo ngi fi waaye ku gis eh, ñii ñu taxawal nag kii ñu taxawal xam ne ku ñëw ci àll bu mel nii eaux et dina am liggéey am solo boo xamante ni it ñoom dinañ ko fi amal waaye jiital ko fi lu jiitu li nga xamante ni mooy liggéey bi waaye ak leneen ak leneen loo xamante ni mënuñu koo càmbar te ñu koo wax. waaye li mën a feeñ rek nga xamante ni gis nañ ko diirub liggéey bi saa su nekk mën nañ ñu ànd ñoom li nga xamante ni mooy liggéey bi waaye rawatina ci wàllu ndox ak lépp loo xamante ni it maanaam soxla woon nañ ko fi ñoom ñu taxawaay bu am solo boo xamante ni it maanaam uh, amal nañ ko fi bu baax a baax a baax xanaa rek uh, mënta ñàkk ci ay kàddu yoo xamante ni uh, day dem ci jëmmi liggéey bu mag bi nga xamante ni Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Soy bu woote na ko fi waaye ñu ñëw gis ci seen taxawaay taxawaay bu am solo boo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñun rek ci jataay yi mënti doon ci réew mi rek dina gis seen liggéey bu am solo bi. jërëjëf ñu euh, ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp ñu fi fekk ñu ngi ziar sëñ bi ak euh, jëwrin bi ak euh, askan bi ñu fi fekk yëpp xel xel dal na. parce que depuis ñu jot correspondance bi ñu préfet bi wax ne sëñ bi daf fi war a ñëw liggéey santaane ñun def nañ si suñu këntalaayu kàttan ndaxte eaux et Euh, ñu bari dañuy yaakaar ne OFR fay ñëw pour euh, dàq nit ñi si àll bi wala fay ñëw pour euh, bañ kenn dugg si àll bi ñun li may wax nag si sama kàddu ay kilifa la OFR ñëpp la fi nekkal amaan sax ñi nga xam ne ñoom dañuy dañuy tett nit ñi si diina gi di tett nit ñi tamit si affaire liggéey te bi ñu ñëwee fii suñu xel dal na parce que gis nañ ne ñoom si si liggéey bi ñu ngi aar xam nañ ne garab dafa am njëriñ parce que gis nañ garab yi mag yëpp ñoom laaluñu ko lépp loo xam ne euh, mooy moom moo leen di mën a gàllankoor si bay mi rek rek moom la ñuy dindi maanaam ñu ngi respecté normes yi ñun tamit sunu wàll tamit mooy ñun ñuy ñëw di waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser pour wax leen rek ne leen euh, bi lañ koy wala li ngay def pour bañ a moytu daayeex loolu lii dal na xel parce que li gis fii rek dal na xel parce que gis nañ garab yu mag yëpp bay nañ ko ñoom lépp loo xam ne dafa leen di kii ëkk yeex rek moom la dindi ak ndeg yi vraiment suñu xel dal na ci te ñun tamit ñu ngi leen di ñu ngi leen di wax ne jox nañ leen suñu Eaux et Forêts daf fiy ñëw pour nekk di leen kii di leen di leen wan yoon bi mais loo xam ne daf def daf leen koy wan pour mu aar àll bi te ñoom gis nañ ne ñoom euh, kii gis kii nañ ko daal ñoom ñoom ñu ñu ñoom ñu ngi koy dund. parce que yemuñu si yebal ay ndaw yoo xamante ne ci biir diiru liggéey bi ñu ngi ànd ak ñun ci ndox meeg bépp euh, gàllankoor boo euh, xam nga ndox mi sunu wareef la. ñu ñëw jox leen ko.

suñu devoir la ñu ñëw jox jox nit ñi askan wi ndox mi waaw vraiment te loolu euh, euh, euh, lu ndaw la rek bu mën mënoon def lu ëpp ndox mi ñu def ko waaw loolu daal ñu loolu ñu koy rafetlu suñu suñu devoir la ñun ñu def la ñu ñëw may ndox mi askan bi ak nit ñi ko soxla daal ñu jox leen ko waaw allah mbokk yi ñoo ko déggandoo noonu ñoom ñu am liggéey bu am solo boo xamante ni diirub liggéey bi rek ñu ngi koy ànd ak sëriñ bi waaye ci lépp loo xamante ni rek war na te yàlla na boobu ba léegi di ñaan lii leen xam nañ ko lu baax rek lañ ciy sàkku yàlla na ko sëriñ bi defal kon ne suuti kon ak suñu yeneen élément wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala ya akramu bi salaami ala nabiyi lmudhibi lmalami sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lxaali walmaali محمد والآل وفى به في الحال والمآل ولي أب فيك وفي ما به يغبطني كل سعيد نبي وصلي يا لطيف سلمي على الذي يحور داه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقد له في ما يستعين سيدنا محمد بلنتي وقد له فيه به ما يشتهى وصل بتسليم يا من ضبى إلى سواي ما أصافا ضبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد هاشم رسول يا جبرني هاشم رسول جل Hare Krishna. فاقبل نظامي وصائي كل كرما ولا ترد ليادا لي من الامل فاقبل مني فضلا لا مناقشه وقد بغير ان لي به املي أشكر بفضلك صائي وارضى يا النبي يا من به سرت ذا أدين ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد أداني أفضل صبني كل بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكريمة ولا تردن يا مذيبا إلى لي دم النظام إلى صعي سحاب غدا ولا تردنه يا مذيبا قلني سواك لم أرجو في سر وفي ألن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 mu mel ni dañ fee indi nag yeneen kàddu yu xam ne yi seeni borom dañu waroon a teew te am ngantal teew fa ñu dajale kàddu yooyu yëpp jox ma ko ma bëgg nag jotal ko waaye kàddu lépp na gannaaw ñu sante yàlla julli ci yonante bi ci liggéey bii ñu liggéeyal sëñ Tuubaa ngi rawatina yéen ñi ko liggéey dañ leen cee sant de ñaan itam nag yàlla nangul leen nangul ñu yéenaay sëñ bi yàlla def ko ci ñun mu dalee ci préfet de département bi préfet de département bi gannaaw bu mu nekkee ak taalibe gu ñu xam bu xam ne duul taalibe bi benn ni man dafa jaar ca daayiraay kokki ja moo weer boppam cérémonie yi dañuy dem ba mu yàgg mu dugal ci benn aaya walla mu indi ab xasaayit firi ko loolu taxuloon ma xam ko ma toog ak moom mu wéet ak sëñ bi sëñ Muntaxa euh, euh, sëñ am sax ndeken moom gannaaw bu mu nekkee taalibe dafa nekk sëriñ bu euh, dafa nekk mbokk ci sëriñ bi bu sës ci moom ñu dugg ci seen waxtaanu mbokk bi moom taalibe gi moo ko gënal moom la doxee itam bu ñëw na fi ànd ak chef de service yi nekk ci département bi lu jiitu li ñëw na fi ñëwaat fi ñëwaat fi sëñ bi dem na ci këram démb ñëw na ànd ak as uh, sous bi nga xam ne moo nekk ci arrondissement bii ñu nekkee tey ànd ak chef secteur uh, uh, eaux et forêt bi ànd ak médecin chef bi ànd ak chef de service yu bari ñëw ba ci sëñ Cheikh mu ndokkal ko ndokkal sëñ Abdoulaat sant ñu it gërëm ñu dem ba ci sëñ Modou Mbacké mu wax ak seigne Modou ne ko man de sëtëb seigne Touba bu mo fekke mu ñak toy xep ci liggeyu seigne Touba li ngeene wax yeb de ngeen waaye ñaanal ñun yalla dugal ñu ci barke bi seigne Modou ñaanal ko. kon mom mu ngi gad andi ay kaddum de sante ñepp na gëna bu mu sante sëriñ bi ci li mu jëf parce que kat neena na fa mu dëkk ak fu mu mën tey jii département Malem mooy gën li ko gënal fépp kon bu fi sëriñ bi ñëwee te mu xam moom bu nit ñi xamul tam moom xam na nit ñaam am nañu xam lan moo fay tànk sëriñ bi ak jeexatali sëriñ bi lii muy fi nasir bu ko yàlla yeggalee la muy jural département yi dana ci sant. Mm-hmm. Ali nee mu ngi sant ñëpp nag. waaye ganaaw bu mu santee ci sëñ bi ci xewal gii yàlla def mu indi ko ci gox bi mu dëkkee mu ngi sant nag mbooloo mi ci xooy si gi ñu si ak lii ñuy liggéey dëgg la kat nee na xam na ne seen bopp ngeen ay liggéeyal xam na ne yàlla mooy fay te yàlla dina leen fay xam na it liggéeyal sëñ Touba parce que gisoon nañ ñi liggéeyaloon sëñ Touba démb ak tey ba fi ñu toll nii loo xamadi xamati seet ca ñooña rek doy na tegtal waaye nee na loolu bu mu amee nag gërëm na leen ci teew bii ñu teew muy góor muy jigéen surtout ndaw yi sëñ bi ñu jéggalu ma indi suma cant bopp gu xam ne gii gannaaw yàlla nag maa ko santal suma bopp loola moo li nekk ci man njóobeen gëm a dëkkee de njóobeen sambalaamu sëriñ bi bi mooy ñëw maa nekk président comité bu njuum gent yàlla indi ko foofa sëñ Abdoulaat fa la ko dël yàlla jàllale si ko fii fii gën a yaatu te fii ak foofa benn la ci man parce que réew mi nag ñoo ko bokk ñoo ko dëkkee daaw ma ñëw fii taseeg daayira ba ci njóobeen sambalaama bu murit ba njóobeen dafa am daayira murit am fa daayira tijaan man ma nekk ab tijaan yàlla boole ma ak ñii waa kër suñ tubaa ñu bare bare bare bare nag suñ am soto dañ cee yegg fu kenn yeggul ma ñëw fekk daayara booba waxuñ ma tàgguñ ma takk seeni saret ñëw am fi ñetti fan njoobeen oto yi dañooy daw saret yi dañooy ñëw ñu wocc fa seen kër yi wàcc fa seen lépp ba liggéey ba pare ñu ñëw fii ci sëñ Cheikh ne ko ñaanal ñu sëñ Cheikh ndigal moom lañ tuddee woon gaynde xel xom fii nag ci Touba Mouride gii de man suma wàllu bopp ak ñi ma déggal sëñ Modou Mbacke lañ ko tuddee mu ne ma tuddee naa ko ko waaye nag sëñ Ibou du sant Mbacke ko may de du satab sëñ Touba ko may de jëf moo ko ko may. sa wax boobu nangul naa la ko sëñ Modou Mbacke moo nekk gaynde Touba Murit gii. kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen sant bu baax ci ndigal li nga xam ne mooy liñ doon sàkku te mu yegg si léegi. Eh, wax ji nak neena da koy tàmbalee ci Serigne Ousmane Ndaw mi nga xamni ni mom la monsieur le maire don tuddu léegi nga xamni barab bi tay bu ci Serigne bi joté mo ci moko dogal eh, Serigne bang koy sante bu baax ci jappandal gi nga xamni jappandal nako bi ba tay ji li mën am waye nak lu wara nek la ndax barab bi yakarna ay ati at Ken ken laalu ko tey bu ñu yegsee ba fi sëriñ bi jot ci day melni ni lu sëriñ bi la baye mit mom ci bopam wax na sëriñ bi ne ko bayam siqoon nak wolere wu reey sëriñ Tuuba sëriñ abdoulat ba sëriñ abdoulat jox auto nak day firnde ni ba tay ji moy ram ba ci digam ak sëriñ bi kon monsieur le maire ñing lay jotti loolu nga jottali ko sëriñ bi sëriñ bi it wax ni mi ngi lay sante bu baax Serigne Cheikh mi nga xamni moy mooy jëwriñu liggéey bi ci kilifteefu Sëñ Abdou Lahad mi nga xamni dafa ñew dara jaal jotaay bi neena mi ngi lay sante bu baax ndax boobaak tay ji yaangi ci wetam and ak moom lepp fu mu lu mu soxla bu ko waré doxi yow la koy wax nga dem doxali ko ko neena mi ngi lay mi ngi la ci sante bu baax lolo nak du tay man nañ ni ci njum la tambalé pe pëseef ba nga ca def ba nga xamé ni lañ wara jox suuf ci serigne bi lolo batay ji serigne bi da koy ndax bobu sa mandat na amu woon droit def ben délibération mais dang ko def ngir ndigalul sëriñ bi bëgg nako loolu ci fekk nga jël loolu nga wax loolu nak ba tey ji yang koy doxal sëriñ bi mi ngi fédeli loolu di la sante bu baax bu loolu jàllee yi nak sëriñ bi mi ngi sant préfet bi nga xamni mo jité département bi yépp wax nga ci lu am solo waye sëriñ bi def ni nañ ko santal préfet bu baax ci turu nag sëñ Modou Mbacké ndax sëñ Cheikh bi ko sëriñ bi joxee ndigal li moom it dafa jëlaat lépp jiital ci sëñ Modou Mbacké ne ko moom mi nekk ci gox bi xamal ni liggéey bi sab liggéeya féetale nañ la liggéey bi yëpp sëñ Modou Mbacké it def ca lu am solo ñun daanaka defuñu ci dara lépp moo ko doon def diggante préfet sous préfet eaux et forêt gendarmerie lépp ba ci wàllu santé lépp sëñ Modou Mbacké ko doon dox ànd ci ak yow. kon señ modou mbake mi ngi jotli ak tiant bu baax nga jotlil ko ko préfet neena sant nako bu baax jappalal nako la it ci ndigal li ko serigne bi jox señ bi neena lolu señ modou mbake neena lolu it nang ko ko jotlil euh, señ euh, nang ko ko jotlil préfet ak administration bi nga xamni ñom la andal ñepp neena it ñu santal ko señ saliw diouf señ saliw diouf ci magi talibey la tey jii ñemeloon nañu ci liggéey bi ñun ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom ndax mën nañ ni ba mu ñëwee ba tey noppaluwul saa su nekk mu ngi ci wetu sëñ Cheikh mbooloo mu dem mu jëlaat oto chargé waat mbooloo indiwaat ko sëriñ bi nee na it sëñ Cheikh sant na la bu baax jot li na ko sëriñ bi it te nag yamu ci dafa jël njabootam yëpp jébbal sëriñ bi kon li muy def lu dëggu la ci moom sëriñ bi sant na bu baax ci loolu di sant it nag. waa kër sëñ sa Sadex Ñang sëñ Cheikh nee na saa buñ ko joxee ndigal ba ci guddi àjjuma yi saa su ne ñu ngi ci wetam ci kilifteefu sëñ Jiili mi nga xam ne mooy seen kilifa boobaak léegi bu ngeen gisee ñëwuñu rek dañuy ñëw indiwaale jumtukaay liggéey indiwaale matériel yoo xam ne ba ci sonorisation bi ngeen di gis ñoo koy indi ànd ko ak moom Serigne Cheikh nee na sant na leen bu baax a baax a baax waa kër sëñ sa Sadex Ñang ñi nga xam ne it ñoo bàyyi koo njum njum gent ak dëkk yu ko wër yëpp sëriñ bi sant na leen ndax jàppandal nañ liggéey bi lool ba ca maire ba fa nekk muy euh, Omar Omar Dieng ñëw na ba fii ci sëñ bi ni ko sëñ Ibou Cissé mii defee nga xam ne moo ko njëkk a def ñoom ñëpp ànd nañ ñëw ci sëriñ bi boole ko indi seen participation ci tool yi jox ko sëñ bi ànd ak moom liggéey bi joxe seeni oto. kon sëriñ bi mi ngi koy sant bu baax kon sëñ bu nga jottali loolu it euh, sëriñ bi. waaw ba tey rek sëriñ bi mi ngi dolli di sant bu baax mbooloo mi ci taxawaay bi nga xam ne ànd ngeen ko liggéey bi di beralaat cant yit nag sëñ Modou Mbacké sëñ Cheikh nee na mi ngi koy beral cant ndax nee na noppal na ko ci liggéey bi. bañ nako ba bi mu ñëwé ci liggéey bi nang wuuta jël lenn lo xamni ñun waajal nañ ko ëndalé ko señ Cheikh néna leppam da ko ëndalé ba ci basam la nga xamni lañu wara jëfëndiko lepp señ Modou mbacké dañu tegul lenn señ bi yamu ci dafa tak deram yor ak xépam and ak mbolo mi jité liggéey bi kon señ bi néna señ Modou mbacké xolam sedd na lool jappandalal nga liggéey bi mi ñaan sa mam ni nga xamni motax ngay def li ngay def mu fayal la bopam hmm. neena na it euh, mi ngi sakku ci ñi nga xamni ño fi tew ak ñi nga xamni jankatu khasside lañ wax ji ko ci jot nga ñaanal señ Modou mbake mi yalla gën ko kàttanal neena yeen ñepp ngeen ñaanal señ Modou mbake mi yalla gën ko kàttanal señ bi nak neena mi ngi sant Aliyama mi nga xam ne mooy député maire bi nekk fii ci département bi ñëw na fi ñaari yoon monsieur le maire wax na ko léegi waaye ñëwoon na fi ànd ak euh, Ibou Cissé ñëwaat na fi démb ànd ak préfet nii ko Ibou Cissé defee rek la ko def yab na ay am ñëw indi ànd ak liggéey bi ñoom ñii nag dañoo am tawféex ndax mën naa ni li ñu dajale li ñu daje ci njabootu Serigne Touba benn. maire amu ko wala benn préfet amu ko ndax boo xoolee xel Xelkom fii la bokk Daaru Minam Saalum fii la bokk Touba Murit gi tey di yees fii la bokk kon boo xoolee mën nga ni sanc murit yu ëpp doole ci yoon wi tey jii département bi ñoo ko yilif kon ñoom dama yaakaar ne sëñ bi leen a beral seen tawféexi bopp kon sëriñ bi ngeen sant yàlla bu baax sëriñ bi nee na Ibou Cissé loolu nga defal taalibe yooyu doon wut këru xaside gi foofu këru sëñ Touba gi nee na mi ngi ciy sant bu baax nee na loolu sëriñ bi nga ko defal ndax fépp fuy taalibe nekk fuñ dajaloo loo leen defal rek na nga xam ne sëriñ bi nga ko defal nee na dina ko jot li sëriñ bi sëriñ bi sant na ci bu baax a baax sëriñ bi nag ñu dolli ci tuuti kàddu rek ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi wax na ko sëriñ bi nee na xolom sedd na ci mbooloo mi fi daje ci liggéey bi nga xam ne dañ koo liggéeyal sëriñ Touba ndax sëriñ de yàlla da ko faye mbindeef yi liggéeyal na yàlla ba yàlla ne ko féetale na ko mbindeef yépp moo leen yilif moo leen moom nu mu ci xeetu moomeen bu war a am sëriñ Tuubaa moom moom mbindeef yi loolu da ko liggéeyal yàlla ba yàlla defal ko ko sëriñ bind na ko kon tey nu ko neex mu jëfandikoo mu jëfandikoo ko ci ñun bu ñu neexoon ñu liggéey ba àggal mu bañoo fay dara loolu sëriñtuwaa yàlla ko ko defal kon tey jii bu ñu diggee ñun ñuy koy liggéeyal mu digal ñu ci lu kawe kawe aw ñax mu ne ñax wii nga xam ni ndax dafa am loo xam ne yàlla moom rek la ko defal ci kaw suuf moo ko indi mooy liggéey. bi mu ñëwee fekk na fi jaamu yàlla fekk na fi jàng fekk na fi doomi soxna waaye dafa am loo xam ne moom la ko sëriñ moom la ko suñu borom jagleel mooy ñax ñax jariñu loolu moom la ko jari moom la ko suñ moom la ko yàlla jagleel loolu nag tey jii firnde ngeen ko fii ci toolam yi leer na leen ni sëriñ Amsatu bu ñëwee ba fii dagg fi lu toll nii mënoon na koo am ca tuubaa bu ko bëggoon wax ko sëñ Muntaxa fu mu bëgg mu wax ko ko mu jox ko ko waaye tey jii bu ko joxee fii dimbali jaam nii rek ko fi indi kon nang nangu leen ni yéen murit yi ñëw fii liggéeyal Serigne baa ak képp koo xam ne ñëw nga fi am nga taw feex Serigne bi ndax sëriñ bi ci boppam yónnee na fi ndaw léegi moom mu Mountakha di rafetlu liggéey bi ne mi ngi koy ànd ak sëñ Amsatu te am na lu mu wax barki dem maa ngi ciy waxtaan ak léegi benn benn benn benn kenn ci dongo yi mu ni ñaanal sëñ Amsatu mooy liggéeyal Serigne Touba. kon tey yéen bu ngeen di liggéeyal Serigne Touba jàpp nañ ni taw feex ngeen am sëñ bi nag li mu waxoon wax ji de mënta gudd ndax jëf mënta ànd ak wax dañuy wax ne rek nañ sant Serigne Touba bu baax te ñun ñëpp ñu maase it àndal ñaanal am Amsatou ñaanal ko liggéey bi ñu ànd ko ak moom ndax xam nañ ni bu fi yàggee lépp lu sëriñ Serigne bëgg dina ko def ci taalibe yi kon Serigne baa ngi leen di sant bu baax a baax nee na kenn ku ci nekk lépp loo fi ëndaale ci yitte na nga xam ne saafarawu na ndax liggéeyal Serigne Touba liggéeyal sëriñ bi dafay topp aw xeet wax naa ko daaw fii day topp aw xeet day topp sa maam yi njëkk ci kaw suuf dimbali leen day topp sa sët yi mujj ci kaw suuf dimbali leen. day top sa di yi mujj ci kaw suuf dimbali leen kon tey jii ku am occasion bu mel nii ku la ko defal nga ñàq ci bu baax baax tawfeex la am na ñoo xam nyuko. am na ñoo xam ne ñi ngi nekk seen i kër seen i climatiseur lépp lañ dagg ñëw toog ci àll bi ànd bi kon am ngeen ko yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéeyal sëriñ bi eaux et it bi mi ngi leen di sant bu baax ndax ànd gi ngeen ànd ak liggéey bi di jiital capitaine euh, Seck lieutenant Seck mi ngi koy sant bu baax ci yéen ñi nga xam ne la fi yabalit sëriñ bi nee na sant na leen ndax gàntul leen ko ci dara yéen a ngi ko def ni ngeen ko war a defee médecin bi nga xam ne moo fi nekk it mooy médecin Diouf sëriñ bi sant na ko ànd na ak liggéey bi jàpp nañu sax bu ñu waxee préfet rek ñëpp dugg nañ ci biir ndax démb préfet ñëwal na boppam chef de service yi fi nekk yëpp mu santal leen boppam kon sëriñ bi loolu la waxoon ñu sànni ko ci ay kàddu ngeen tàllal yéen ñëpp sëriñ bi ñaanal leen amrit amrit amrit nekk ne ne ci li nga man jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni boobee ba tey yéen a àndoon ak ñun moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew ci liggéey bi nga xamante ni am Amsatou mbakki moom Serigne Chouaib bi mi ngi ko doon amal fii ci boori Malem Hodar fii ci tubaa Mouride Touba Mouride nag nekk eh, fii ci Malem odaar digganteem ak Malem Hodar fukki kilomètre ak juróom-benn nee nañ wax nañ ko waaye amaana sax mën na ko ëpp. di leen xamal ne fan yi yëpp ngeen gis ne ñoo ngi fi woon doon ànd ak yéen ci liggéey bu sell bi nga xamante ni sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Son bu santaane woon na ko fi waaye it mbokk taal bi yëpp ñëw ànd ak moom ci liggéey bii rawatina liggéey bi yëpp nag mbokk yi yéen a ko gisandoo noonu mboolem ñenn ci kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa département bi ñëw nañ fi ànd ak bi ci liggéey bu sell bi nga xamante ni sëriñ bi mi ngi ko fi amal noonee nag nañ ko ànd ak yéen ba lépp loo xamante ni moo tax am na fi ci liggéey bi nga xamante ni dongo yi doon nañ ko fi amal moo xam ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci wàllu déj li nga xamante ni mooy ëkk yi ñi nga xamante ñoo nekkoon ci waañ wi ñi nga xamante ni ñoo féete woon ci wàllu ndox mi ñëpp rek ñu àndoon ak kenn ku nekk gis sa bopp ci li nga xamante ni mooy liggéey bi noonee nag mbokk yi lañ fas yéene di ànd ak yéen bépp liggéey boo xamante ni sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soy bu su mun na ko moo xam fii la ci Malem Odar wala moo xam foofu ci Touba moo xam fu mu mënti doon dinañ ko xel di ànd ak kon fii rek la ñuy yemande ak yéen ci liggéey bi nga xamante ni ñëwoon nañ fii ànd kook sëriñ Amsatu Mbàkke waaye ci ليغا خامتيني موي جيوري ليغي بي فخمنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ولا ترد الايام دلي من الهمال فاقبله مني يا فضم لالا مناقشه وقدو بغيري أنا إلي به أمالي أشكر بفضلك سن يوردين نبي يا من بي سرت ذا بدين ولم أميلي أنت الكريم الذي أبغي تكرما يا خير ادم ادم بأفضل السبل كل بجاه رسول لله ما بكينا عليه خير تم منك عن قبالي وارفع نذامي يذم جودا وتكرماتا ولا ترودنهم يا مذعب